dikkati na ngi ñëw le quotidien le quotidien ni ma Mimi de yemul rek ci ñëw waaye dafa accélérer la cadence pa tribune yéen kaay di may xamal ne Mimi Touré kay saa tembe mortal combat nag la woote digganteem ak président moom Mimi Touré ab loi ci moom la bëgg a bind dëxañ daal ma kaay ma nettali li xale naan defante xeebu ma ci liir buy doog a juddu waaye Mimi Touré day tànk yi mu jël tembe ci defanteeg président Macky xeebu ci lenn tribune ne kenn lu dul nag képp koo xam ne nii danga jege président de la république ngay cib njabootam wala goro wala lennam maanaam daal yow liggéey ci république bi mënatul ne Mimi Touré ne goro président mbokku président mënatuñoo liggéey ci lépp loo xam ni moom président de la république da ciy tabaate yéenekaay bi ne ma luwaab Mimi Touré bii day bu jàllee dana metti lool ci président Macky Sall critique yéenekaay ne ma tambali na metti nag ci assemblée nationale ndax saa si tembe daw gi daw jàng mënatul nekk ndax kenn ko absenté rek mën ngaa yàqal sa groupe parlementaire mbaa nga opposition mbala pouvoir ndax benn wot bu ci manqué keneen ki mën naa jël ndam la waxtu woowu moom président de la république Macky Sall le vrai journal ne ma mi ngi capp-cappal de di defaraat nag taara moom président Macky Sall ngir Sénégal bu doonub jeeg la gën koo bàyyi xel moom président laas yéene kaay ma ci wàññu njëkki dafa mel ni la koy njëkkee de am na mesures yu doy waar yoo xam ne jël nañ ko ñu war a wàññi ceeb wàññi meew wàññi suukar waaye nag xool nees def ba jën gi daal di bari lool ci réewum Sénégal daal wàññeeku lu yaas gi laas yéene moom président Macky Sall day mi ngi ci xeexu wàññikoom l'observateur ne ma ña président Macky Sall tabboon ngir ñu saytu dëgg dëgg la nag lan moo yokku ci réewum Sénégal ak lan moo waraloon ak yokkuteem xam le na ni luyaas gi da ci téeméer boo jël fanweer ak juróom ñett yokkuwaat na ko ci réew mi gaa yi nag daal di wax président Macky Sall ay porox ndoll yoo xam ne bu ca jaare fii benn fan ci weeru janvier 2023 location day daal di wàññeeku ci réew mi las yéene kaay ne ko janvier gii moom président Macky Sall fas na yéene wàññi location Ndaw asko seen ne lu metti sénégalais yi bayeer yi leen ko teg borom kër yi ñoo seeral location situation bi mar day taali lobs ne ma waaye saa si tembe gars yi ci boppam daal dinañuy xamal président Macky Sall nag lan moo waral nag yokkute ak njëg yi xamal ko ni nag bu jaaree ci taxi yi daal di wàññi mbir yi saa si tembe léegi mu daal di rës ci réewum Sénégal denrée yi dina wàññeeku fourniture scolaire dina wàññeeku la nga xam ne moom la ñuy fajoo ci réew mi sax boo maytul dina am wàññeeku tribune ne boobu agent yi post yi day ña ngay fàttali président de la république Macky Sall ne ko ñi ngi ci jaxaan na ma goo xam ni maar day taali seen salaire ci boppam ba nii kenn fayu liggéey bi daal dinay taxawandi liggéeykat poste yaa ngi ñaxtu le quotidien le quotidien ne seen coono gi day kenn teggu leen ko daanaka ku dul président de la république Macky ak yokkuteem salaire gi nga xam ni moom la woote boobu l'enquête quotidien daal di may xamal ne retraité yi day ña ngay souffrir lu doy waar foofee ca poste turbine ne ma Air Sénégal Afrique centrale dematu fa le quotidien le quotidien ne ko sunu compagnie baa ngi gën a daanu rek de laas yéene kaay protection de données personnelles daal dina ne niib ko boole ci Total énergie ak loxo lañ leen def Sud Quotidien daal di may xamal ne fii ci réewum Sénégal ci boppam protection civile nag moo fi jaarul yoon moom nguur gi ci boppam dafa am ñu muy sàmm ak ñu muy bàyyi fii ci réew mi bâtiment yaa ngi nërmeelu ay accident daal di am ci bërëb yu ñuy daal di liggéeyee libération yéene kaay ko tegal sa loxo ma ñëw ab appareil nër dinay nërmeelatu ci benn usine boo xam ne mi ngi fii ci jam ñaajo ñaari xale yu góor daal dinañ ci ñàkk seenu bakkan Sud Quotidien la may waxatee ngi de fekki juróom ñaari nga xam ni faatu nañ ca njaareem fekki sénégalais yi nga xam ne ñu ngi faatu ci tali bi ci anam yu doy doy waar waxtu woowu yéen kaay bi ne ma góorgóorlu ci boppam moo jàpp ne nguur gi saa si tembe da koo protégé wul sàmmul bakkanam sàmmul am amam Ibou Sané sociologue ne nguur gi day bu nu xoolee ab doxalinam dafa mel ni nag ña nga xam ne ñoo néew doole bokkul ci ñamuy dimbali ak ñamuy jàppale waaye tam ñamu jiite seenum nguur le témoin yéen kaay ne boobu mbir yaa ngi jax-jaxi Cheikh Kanté nee na président Macky Sall dafa war a def ñaareel bi mandat 2024 réew mi ko di jee mel ni ku naan kon ñaar wala ñetteel bi mandat en tout cas président Macky Sall ci boppam ci baatam xoj ko jagat jagatee nag ne ko force ñetteel bi mandat mooy am vox populi ne président Macky Sall na lire téere bi Amadou Ka ko daal di bind xamal nag moom président Macky Sall ñaar fukk ak juróom benn bakkaar yi nga xam ne lii tax nag nguuram gi avancé wul Ibou ne bourse sécurité familiale ab détournement d'objectif moo ca am débat ci ñetteel bi mandat Amadou nag ne gaa yaa ngi wax ci erreur boo xam ne am na daal ci dëgg-dëgg sunu càtt goo xam ne dañ koy mesure rek di bàyyi ci anam moom leen gën a waaye nag ab dong la xam nga yoon lim la sant li nga war a def bu nekkee ni nag suñu texte yi mënta xamle ku ci nekk fa nga war a jublu Amadou ne nañu bàyyi ca ba muy teel Amadou ne yaama neex ñoo bokk saa si tembe moo nër meen nguuru président Macky Sall ndax nag mooy kaay ma xëcc la jox la Madior Sylla journaliste bi nga xam ni moo def préface su téere bi ne kaay ma wax la nag président Macky Sall fan la daanoo mooy mi ngi réaliser ay mbir ci réewum Sénégal lu am la waaye nag gouvernance am ci boppam moo baaxul loolee nag moo nëbb loo xam ne liggéey la te mi ma ngi may xamal ne conseil constitutionnel ci boppam samp laaj ci moom dafa daal di jot ndax buñ sukkandikoo ci Ismaïla Madior Fall saa si tembe nag mandat bi nga xam ni moom président Macky Sall ma nga ci kenn mënu koo soppi laaj ba kay moom ndax na yokki mandaam l'évidence yéen kaay ne ma beneen laaj a ngi de ndax nag moom Aly Ngouille Ndiaye ci boppam mën naa tere nag catastrophe ci wàllu mbay mi daal di am ci réew mi laaj ngi tribune yéen kaay ne ma geneen a ngi de mooy Aïssatou Diop Fall fu muy mujjee gaayam yéen kaay des média bi dama Aïssatou dem ba cuun ma ko doon diffamé di wax ni daf leen di dàq dàq teguwul ci yoon moo mee la Aïssatou Diop Fall yóbbu ci yoon le soleil yéen kaay ma log poon boo ci demul kaso dem ci barzak ab fléau la boo xam ni gaa yaa ngi koy gën di jël di bàyyi tux mi ndeke day jàpp say cër di yàq benn par benn laataa mu laa faat turbine yéen kaay ne ma réew mi dafa dëgg liggéeyu jàmbur ñu door ndax imaam bi ak porte parole bu chef de village bi ak fukki nit yeneen yu àndoon ak ñoom te ñu njorti ne ñoo faat Basiru Mbay ci dëkk ba ñuy wooyee njëy ñoom ñëpp yóbbu nañ leen kaso libération yéen kaay ma boo moytul day seen giir dund ca kaso ba la ñuy nekk ndax nag niki démb yóbbu nañ leen kaso ci assassinat bu ànd ak nag ñaaw téef ak yeneen libération ba tey ne ma ca Kër Masaar ca suufuk otopoo ba ñaari xale yu góor lañ fa jàpp ñu fekk xale bu jigéen boo xam ne xelam matul ndeke yoo dañu koy jabaroo yéene kaay bi ne ma bul dem ca France ab couple sénégalais lañ fa teg loxo ndekete dañoo jàppoon seen doom di liif jël awra ba ak bët ba daal di lakk ak kaani ba leen tubaab ya jàppee doyuñu l'observateur ne ma xale bu góor bii dafa am njort njort kese nees xarit ba ak jabaram daal dafa am lu ñu séq mu jël